suñu mbokk internet di la nuyu baax a baax di leen ziar ñu ngi toog ak moom ci face à face Modou Lo Boy Niang nag lu ko gisee la maa ngi leen nuyu di la ziar waaw ñoo ngi lay fay di la di la ziar bu baax xaadim di la di la ñaanal di sàkku ñaan ci Sénégal gépp waaw di ñaanal Sénégal gépp am jàmm waaw di jégalu ñëpp nag di xam ne wax mu nekk yàlla rek moo ko mën waaw mais ñun tamit yàgg nañ ci fort quoi di analyser waaw kon bu ñu demee ba heure bi jot de gars yi dañu ciy soxla waaw kon moo waral ñu defaat sorti waaw parce que affaire yi démb neex na trop wax yàlla waaw mujj na àgg tamit alhamdulilah la ñuy wax parce que tey de neer yi na quoi am na lu fa xew te lu fa xew noonu moo waral làmb su génn parce que loolu war nañ see mën a for dara. jox ko gars ñu analyser ko kosaa ko ba booba waaw looloo waral làmb génn nag di ko nuyoo ñëpp di Sénégal gépp monde entier di nuyu Abdou Aziz Abdou Aziz foo ne génnal làmb da laa perte numéro boobu parce que téléphone bi amoon problème waaw di nuyu sëñ Fallou Seck borom tapisserie Touba Xayra di nuyu ah waaw si borom géej gi borom géej gi moom ñëpp xam nañ ko muy alin waaw Aline Gueye waaw kooku Alou grand Alou kooku nekk na ni ku baax si man waaw du def dara te yëguma te lu ma soxla ma da si jàpp quoi waaw di ko gërëmee ñëpp di gërëm Sénégal gépp di gërëm tout képp kuy bëgg làmb rek lamb nuyu nu la ku lim juum Modou Lô Boy Niang dama leen def seen avant dañoo face à face est-ce que démb ñaari mbër yi nga gis ak mbër yi nga naan gis euh, y même même mbër yi nga ba léegi waa tur yi ñëw na jëmm yi ñëw na waaye tey soppeeku gu bëri ñëw na ceddo ga ñëw na mbër yaa ñëw mais tey bu njëkk leader yi ñoo doon ñëw mais démb mbëri yee ñëw xaayaan ku moo taxoon mën a la teg jeexal la bu bañee teg jeexal la teg jeexal gaa ngi gën a xeeñ ah, waaw waaw kenn ku si ne sonne nga sa gasoil xam fa mu toll boo bëggee dëgg-dëgg parce que fañ jëm daa sori mais biñ dalante kenn ku ne sonne nga sa gasoil xam foo toll mais kenn ku ne naa la tojal li tax mu def loolu pour gars yi leerlu waaw parce que ñun ay coach lañ ñun war nañoo xam mbër li mu nar ak li mu narul bu fekkee ne da ngaa yàgg ànd ak moom te yow muy dëgg si yow war ngaa xam mbër mi lan moo tax mu def lii ak kii lan moo tax mu riposté nii. waaw waaw xaayaan ku dégg si. waaw dama gis boo ñaax face à face yi ba depuis ma euh, depuis ci Balla Gaye bi bi muy def face à face ak Sa Thiès toujours day taxaw sur place mais dama gis bi mu bëre Balla ak Modou Lo heure bu taxawee rek moom moo dox dem dem fekki leen lu waral lan moo waral muy def loolu. voilà Xaadim tol nay temps Modou Lo képp ku mu amal bis Modou Lo la ñuy wax li mu def ak li mu wax léegi moo Modou tollootul foofu léegi daa toll si ooy booy ñaa moo toll fa Modou Lo tolloo dugg si garde bi tooñ ko. déranger ko mais xoolal déranger kat. boo koy déranger. bu bëggul déranger wu du déranger wu ndax booy ñaa bàyyi xel loolu ndax ruubekat lay dajal ndax Moodu tey jii lii ñu koy lebal muy mer nii. leble na ko ay nit encaissé ko am na benn jour ba kaay naa li ma dégg mu wax ko du ma ko ŋaang bu gaa yi fàttalikoo dinañ fàttaliku loolu kon nga xamante ne amatul dara lu ñu siy calculer kenn ku ne dañ lay jox sa wàll gaa xam ne sport bi moo laaj loolu parce que boo ñaa ba mu dalee def ak signature ba léegi mën loo ne leen rek. te du yoon arrangé loolu démb ba muy ñëw laa xam ne tey day ruube mais ruube rek a ko tax a jóg pour Modou wax mais ba mu ruubee ruube waat mu mënu ko puusal na puus mu jàll parce que Modou bëggul ku ko wër mu wër ko mais Modou fa mu leen ëppee xel mooy xoolal dafa mel ne leen koy koy romb teg ko ndëgg rek puus ko gis nga ko ñëwul na ko dama lay puus da koo may benn gees sa waay dem fële muy puus ko mayul moo booy bi xam-xam bi mu bari kaar xoolal nit boo koy waxal qualité am dañuy dem ba yaakaar ne yow da ngaa far si moom wala faroo si moom mais xoolal ni mu leen di liire attentivement ba pare taxaw boo ñaa ñu koy jàpp ñi koy jàpp ñu ngi koy sonal parce que jëlul garde normal ba pare mi ngi mi ngi porté dem si moom mu du benn iskiwu la iskiwu taxaw di ko xaar xoolal mënoon na ñëw ak alir day bàyyi mu romb mu fëgg ko fu day yàq signature bi. mais boo ñaa xàcc na ko benn góos boo xamante ni moo lay won ni la boo Niang ak Modou Lo tànk ñuy teg mooy Ama Baldé ak motloo nañ taxawe woon noonu li ñuy taxawe waat waaw bañ bàyyi xel loolu te Modou bàyyi na xel loolu ndax boo ñaa gis nga bi ñu ko bëmaxee automatiquement tànk bi mu mën a bëree la indi la jiital waaw merci tànk bi mu mën a bëree si ginnaaw la ne woon moo waral mu def faux pas boobu ndaw boobu mais gis nga bi muy jëlaat garde pour ñëw si Modou Lo daa puus tànk bi si kanam mais xoolal Modou ne mu lataraaloo Modou day bëre képp kuy bëree teg tànk boobu munoo sonal Modou tànk bi boo ñaari teg droit am boobu moo dul teg gauche saa yoo ko defee mënoo ko sonal parce que day latéral ak yow léegi loxo bële moo ko mën a gaañ loxo bi sa ginnaaw moo ko mën a gaañ te buy ñëw day iski wu bu paree bu la fa fekkee da ngay gaañu parce que Modou looloo xam xeexkat boobu képp kuy teg droite boobu si bo si Modou Lo waroo calculer mu njëkk laa xeex ndax bu la jëkkee xeex doo xeex waxoon naa leen ko fële déglu leen bu baax bu la Modou bu la njëkkee xeex doo xeex bu la njëkkee bëre doo bëre. démb démb euh, seen buuxante ba lan moo fa feeñ. non boo xamante bi am na lu feej ah ñaari weeñ ne woon naa leen boo leen boolee fëgg foo jaar étincelle génn waaw am na kuñ ba max de ah am na lu mu saf de waaw mais nag loolu du dara parce que guy gi Ama Baldé. mais ñun ñëpp mu loolu ko bu ma après boo ñaabu ma. mooy ma waaw. sonante nañ kenn ku ne xam nga fu sa gasoil morom toll nañ dem rek lu njaab yàggee nga war feeñ am na yoo xamante ne xaadim soo koy wax ki la bëggul woon seetaan moo si dutee wax loo xamante ni man nekkuma si yooyu tey li ma nekk mooy xoolal ñu xam bu baax parce que lu ne fang kenn du ko jeex ñoom ragal raayet bi moo tax ñoom xamuñu leen mais man ñi may bi moo tax ñu xam ma mais waxewuma pour xas euh, Boy Niang waxewuma pour xas Modou Lo parce que dañ leen di respecté parce que nit ku si ne am loo xamante ni ko daggee wàcc si morom ma rek morom mais fii lu fi baax lu ne dañ koy xam de parce que boo rombee cin bu toogee mbaxal doo xam ne li mbaxal la boo rombee tika deke buy bax du si kër doo xam ne lii maafe la jublu wala leneen mooy booy dee kët nag mbër yi daan laalante doo xam lu ko waral waaw waaw loolu kese la moo waral làmb ñëw di leen ko pees daasa du ma leen yërëm si dara parce que ñii dañ leen a war a soññ ñaax leen wax leen seen i faay ëllëg ñu ñëw si géew bi kenn du yàgg si géew bi ñëpp ñibbi mais làmb ba mu si nekkee ba léegi amatul match si nii lu yàgg te chaque day àgg parce que li ñuy dégg seen ki naaw la kon mbëri bu ñu taxawaalu bu ñu yàppare te xam ne bëri bii dina neex dina yëngu képp ku la ne du neex ku ne bëgg na koo fekk fekkewu ko maa la wax loolu man la am. léegi boo boobu am démb ci face à bi lan la mën a joué ci combat bi. non bari na parce que Modou Lo tey jii sonn na si sa de dëgg neexul de bi ko ba ma xëyee comme oto booy ñaa comme oto waaw dem leen xool. dal si nit Modou duñ dal si kawam Modou mental la koy daan na Boy ñaa bàyyi yooyu ñu koy defloo na ko jox lim moom bu géew baa mu ñëw wor ko Modou fi ne nii mi ngi leen di wor boo ko waxee du neex a dégg ndax ku ne tekk jërul songu ndax saa yoo ko songee yow la yàlla di bañ a faral waxal nañ bàyyi xel loolu te xam ne lii dañoo nekk seen naxante kuñ jaay combat bi di nga am problème te Modou ngi leen di bëgg a jaayaat combat bi première signature bi dañ ne bëxër ñeen mën a ko Modou Lo Ama Baldé kii Boy Niang parce que Modou njëkkoon di départ di wax kon xanaa sama leen wax jama leen waxoon leen Modou mënul njëkk départ di wax xoolal Modou léegi bi boo ñaa njëkk di ñuy njëkk laaj Modou boo ñaa question xool ni ko Modou di mënee tontu mu daa yaagal tontu bi musul woon di jël question moo tax saa yu doo ko soo ko jiitalee rek mu jël question intérêt boo ñaa la mais su ko boo ñaa jiitalee si question moo boo ñaa fii ba suba lu mu wax Modou da koy daw parce que yenn saa ñu laaj ko wax bu am solo boo xamante ne yoonu ruube la Modou bu siy tontu ruube di am xam nga lu mu leen di tontu loolu waxu mbër la waxu mbër mooy laaj laaj ko loolu waaw waxu mbër mooy lan waa mu doon ñamal tuuti si waxu mbër waaw pour mu dugg mais ñoom tamit dañuy teggi loolu bàyyi ko laaj boobu rek muy mu dagg ko si waxu mbër la mais foofu la boo ñaa bës pour mu génn foofu comment bi neex boo ñaa xam moom it lan la nar mais boo amul ko gën a ko pour manquer de respect defewu ko pour roubé pour yàq bis bi moom ndax boo ñaa ku ko xam-xam ne bukki yàppatul bay booy waru koo yàpp bay raggub ca xam réel la nag borom tëyul sa sos ba léegi boo ñaa mooy moo mooy gérer loolu moo gérer booloo bokk ndey bokk baay waaw moo ko falal boppam Sénégal gépp nangul ko ko kon du yàq bis bi mais dafa àgg foo xamante ni yow li nga wax sànq daa am sens nga ne si ñaari bala gay ak Modou Lo rengu lay ruube waaw ak guy gi ñoom ñett ñii ñëpp mayu leen jàmm mais kii nii su ko boo ñaar daanee ñu tam ko vampire su ko Modou Lo daanee raxas Pikine ba mu set nag ñu daaj monument ba xaw ma Pàccu Lambaay lañ koy daaj xaw ma Puntu mais fu mu nekk moom dinañ ko fa daaj moom. mais mais est-ce que dem face à face bi gisoo koo am na am na benn euh, gën a ñeme moroomam ci par rapport au combat bi. waaw boo ñaa moo gën a ñeme waaw mais mais mais dara mën nga ñeme mais ñeme sa musiba mën nga ñeme nit daan ko lépp a ngi si. waaye mu xoolal yenuñu ko lu ko Ama yenul ndax distance bii moo tuuti mook Ama cinq ans la chaque jour xeer Ama borom jom la de fii ngeen koy xame mais nag fekk àggul fi kenn du xam Ama mais bu jàllee mën nañ see xam Ama mooy kan. mën nañ see xamit boo ñaa mooy kan. combat mooy àtte lépp daal. combat bii la Modou war a àtte lu teg jeexal wop wop lu waaye teg jegoo ko ñàkk nga si ñoom ñaar ñëpp. combat bi ban importance la am ci carrière Boy Niang. waaw baay bon question benn. Boy ñaar dina def lu kenn deful si booy si ñoom Sa Thiès sa catégorie googu mu bokkaloon ak ñoom doon bokkal 72 heures Mbaye Guèye ñoom ñëpp kon tey Boy Niang seen ikk xilifa mooy seen borom dan tey Boy Niang def na histoire boo xamante ni doomam sax su màggee ñu wax ko mu nekk lu neex si moom Modou loo daan na diw daan fi diw daan fi diw daan fi diw waaye keroog ba mu laalee sa papa sa papa ko daan fii. ak Balla Gaye Sa waaw daan baala gay daan Sa Thiès sa papa bii di ngay dégg muy Ama de mosul bëreeg Balla Gaye waaye daanul bu Modou Lo ko daan at moom ko daane sa ko sa papa daane loolu neexul si nettali moo tax combat bi fu neex la ko yóbbu mais fu muy jëm ak Modou nag mooy dugg na pikin di fa bëree vingt ans kenn daanu ko. hop hop daan mag ñi daan ko ne fa la jëlee roi des arènes waxal fa la téye roi des arènes. ma jeex waaw te ñi mu daan ñoo gën a posone si làmb ji bàyyi leen xel loolu. Modou Lo bu daanee kii ñi mu daan ñoo gën a posone si làmb ji ndax xoolal a ah, Boy Niang bi muy daan Balla Gaye si at mii la. janvier waaw première janvier la woon deuxième année ba lay gën a wexana mi ngi dalaat si mi ngi doog a dal si kii daal jóge si baala Gaye dal si Modou Lo Modou Lo ku daan Balla Gaye ko ñor waaw bàyyi leen xel loolu waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko Modou ku daan gay Gaye ko ñor moo tax combat bi Boy Niang na si teey ndax ku daan baala gay waroo faale Modou la mu indil baala Gaye bu ko indilee Modou Lo ma gëm ma doy maa la wax loolu waaw mais Modou bukki timis la loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ bu bis bi jege see nga gën a noyyi. boo ñaan nee na ko buñ bëree mu jumloo jumloo la ci bëree Modou Lo na ko li nga wax noonu contraire bi la. non mën na ku ko mënta juumloo doo ko daan boo ñaa bu naan mën na koo mën na koo que boo ñaa ku mënta juumloo amul ndax boo ñaa nee du jël ba pare doo ko xam ba xam attan na ko day làmbu su baaxut mu bàyyi fa te mun na feree ne bëre mais Modou nekkul ku ñuy ne bëre parce que yorul xeexu benn benn bi boo ñaa xam Modou corox la xam fët waaw waaw nga bañ mu dugal chargé waaw boo ko bañee di nga ñëw yooru te saa yoo yooroo doo ko fi fekk parce que dafa oyof suuf les la parce que Modou xoolal taay bi mu yor te saa yu su mee ko day téye mbër ak lu mbër dis dis da lay téye waaw bàyyi leen xel loolu ngeen xam ne kii ndaama la mais ndaamal mbàcc buñ koy wax si mot loola kereeram ba mu daj mu doon bëreel loolu ñëpp a ngi si ginnaaw amul kenn ku si am si booy lim si am te xool ko ba léegi mi ngeeg booy waaw te boo ko xoolee si booy yi danga naan ay morom lañ génération moo si jiitu bi de. Moodu beneen bu bees la. xaw ma day yàgg xaw ma du yàgg mais dajji na paquet bu bees tax. beneen Aliou la jël ci laaw. si bii lañ koy xamee xarañ lool si bii mais si Ama lañ xam ne xarañ mais si Boña la ñuy xamee xarañ lool bu ko neexee terminé tey bu daanoon Boña tekk ngembam benn axalu laam du ko xas def na lu kenn deful. mais bu jëlam ak Balla Gaye day daal di fay mais 32 combats moog Balla Gaye gëm mu am rëpp. moom Modou waaw. 32 combats jamono jii nii Eumeu Sène am rëpp. 32 Eumeu Sène Modou Lo gëm am rëpp waaw ndax bu képp tamit saa yoo ko dàqee day ñëwaat xaayaan. bu dëgg combat bi moo koy gagné Modou technique. waaw combat bi bopp la si Boy nañ ko teg si code teg ko si bopp. boo ñaa calculer Modou bu baax du ko may dara jàng xeex bu aw yoon Modou Lo tànk mënoo koo rëfaal ba mu ne tekk mënoo koo daan maa la wax loolu man la am am Jóob Njaay ba mu ne naaj taxaw waaw mais moo yoon parce que du taxaw mais yow xoolal oto buy jeyi jeyi tànk defoo ko frein moteur oto bi du taxaw waaw moo tax baa la xam loolu bu nee jey jey da koy refaar ay raaw ay xoo xam ay profondeur yoo xamante ni buy jaaree si suuf dee ay épercule yoo xamante ni moo koy leer day taxaw fële ñu xeex waaw ba mu yooru gëm mu yooru sawaay doog koo jàpp ñu doog a liggéey waaw kay baay xamante ni ñam na muy ñam carte yëpp a ngay formanté ku njëkk toog sa carte rek yaay moom bëre ba loolooy daan moom mais ay ñëw fii ñu jóom njaay nii eh, waxoon naa ko il faut mu ñeme xeex bi dëgg dëgg. waaye bu ko ñemewul jam-jam yi du jël coupe bi te boo ñaa gëm naa ne day ñeme jam jami yi parce que bii teg jeexal la parce que roi des arènes am la waaye neexul ba neexul nag mais boo ñaa boo xottee dënn bi sax xam ne daan Modou Lo jaral na ko lu ne yàlla nag mooy maye ndam waaw mooy xool ku ko neex mu jox la ndam yàlla na leen yàlla may fekke ak tal ak teew ba bis ba ñu ko ñu wàcc combat bi est-ce que est-ce que tey bu fekkee Boy Niang dafa cookaas Modou Lô bu parce que mu xas xeex sama day continuer xeex lay def action est-ce que mu foofu Boy Niang am na euh, capacité yoo xamante ne war na ko mën a arrêté ci xeex bi ba pare ba def lu mu bëgg. waaw waaw bu ko jàppee waaw day fekk mu jàpp ko mais Modou boo ko jàppul mënoo ko ne mu yaru yaru si bëri mënu ko mënoo ko parce que daa xam bëri bu fekkoon ne xeex rek la am nga ne tantan mais Modou boo ko jëlee wet doo ko daan. boo ko pakatewul mënoo koo daan te boo ñaa bu ko dàq jeeg palaakaas day jaaxaan far force parce que relance ba la koy gañee te boo ñaa mën naa mbaar xam na luy mbaar boo ñaa boo jégee si dënn bi fii daan na mais boo rombee loxo yi daan ko mais lii mënoo ko romb moom boo ñaa parce que foofu lay bëree mais saa yoo takkee ndigg ñàkk parce que sama xam-xam laa waxee ñi takk ndigg li yëpp daan nañ ko ñu àgg si ndigg boo ñaa rek ko daan boo ñaa ñi mu daan ñëpp rombuñu loxo waaw dafa am mbër yoo xamante ni si loxo la ñuy bëree am mbër yoo xam ne ba la ñoo bëree bàyyi la nga dugg ba àgg loolu liggéey xam nañ ko bu lay xatar bi day yomb parce que seen fort la. est-ce que xalaat nga Modou Lo jëli Boy Niang xeex bi ñu xeex xeex jaxasoo Modou Lo wàcc dem jël Boy Niang. non na ne. est-ce que du continuer xeex bi. waaw mu non booy xoolal su amee li mu bëgg gis gis suuf gi romb da koy jël tànk ko Modou du ngaaka Modou nekkatul fii di nekk di raag ak Boy Niang jëmale bu kenn xamul xoolal saa yu ko Boy Niang dominé si raag bi mu indi bëre bi que doon dina doon avantage am. non waaw waaw parce que bu jëlaatee xeex bi mën na kaaw bu jëliwul bari bi lan lay jëli foofu xaadim professionnel day xam ne professionnel la te professionnel la léegi neexul ba neexul mais Modou mooy moo gën a ñeme géew bi Boy Niang te nga wax bi moo gën a ñeme géew bi fi ne nii Boy Niang xam nga lu ko waral da koo gën a miin géew bi te bis dépassé wu ko te boo Niang bis bii bisam la bu nee dépassé wu ko suñu xel lay waxe war na kaa mën a àgg fenn parce que boo boo Modou Lo tey ji ba muy bëreeg Eumeu Sène la woo pour Sédar Senghor c'est loi des arènes bi daan jël Modou Lo daa tàncu benn côté génnul foofu ba arbitre soufflé mu ñëw si géew bi booy ñaanam bàyyi xel noonu loolu la ñuy daane bi muy daan booy bi muy daan ah, Ama Baldé Modou Lo benn côté la yem ba arbitre ñëw mu ñëw déggoo ko sax mu yëngu am na ñu ko faraloon gëmuñu woon ne Modou day daan. callam googu ci jig loolu loolu peut-être moom la jig mais est-ce que jig na Boy Niang ku nekk def lu ne moom loolu la xam rek. non Boy Niang mën naa yëngal côté am ko jig ko yëngal parce que bu ko gañee bu ëllëgee bu ko seetaanee mu neex waxal deful seen pertement mais ni Modou Lo di def stratégie yëpp la mais moom après combat lañ koy fay mais Modou kenn mosu koo fay si avant combat. bàyyi leen xel loolu xaayaan nag ku dégg séeréer Biscuit du dem si soos nag après combat la ñuy xam Modou mais Modou kenn mosu koo xam avant combat musul bëree tamit ku dul fogori chaque jour moom tokaar la Modou ba ma xamee ba léegi si ma Mandione la bëree ñu naan sax moo rawoon baay Baye Mandione wàcc mooy bi muy defaat retour mais à part ma Mandione kan la ko kan kan la fi bëreel te ëpp ko. mais aussi combat yu bëri yu mu bëree combat combat combat combat yoo xamante ne combat phare la ci carrière souvent dañoo wax combat xam du ci génn yëpp daf daf daf ci ñëw créer surprise. waaw moo ko indi fii Boy Niang dafa mën bis bu mag maanaam bu ma doon wax naa la ah waaw li ay série fa koy indi waaw Boy ni muy daane sax buy daan kenn du ko fay Boy Niang tamit fay nañ ko ba làmb jàll fay ko biir làmb ndax day yëngal ba daan jot mu yëngal mu daan keroog ba muy daan Balla Gaye day yëngal di yëngal di yëngal ba daan jot mu daan dëgg neexul ah! fala mat na góor bii laay xamee ba xam dina mat góor wala du matul góor. xanaa bi waaw Modou tamit bii laay xam ba xam xarañ lool la wala du xarañ lool xaalib maag kat appui dañuy ñëwaat. merci loola yemut. di gërëm ñëpp waaw di gërëm sama waa koñ bu baax di gërëm sama mama sama yaay mi yewoo benn baraak sëñ Fallou Seck benn baraak kon loolu benn baraak dama si bokk mama faama maa ngi nuyu di ziar ñëpp di nuyu père musaa Diakhaté waaw di nuyu sama waa gaale père waaw di nuyu gars yi si biir yëpp ay ñoom am ñëpp bàyyiwuma kenn waaw di lim sama ñoom yaay sama cabar ñëpp waa alba waa siège bi may toog xam nga ñoom tamit dañ may wax naa ma làmb da ngay dem ba pare te duñ la dégg te wax na dëgg xam nga jege kiiraay la duma ma leen sóoraale mais ay ñoom lébu ah ay ñoom Moussa seen ah ay ay ay ay Moodu Kan ah bébé Pape Thiam ah te tamit damaa damaa damaa am ay booy quoi bilaahi ay fans yoo xamante ni mënu leen a bañ ay taala baa ah benn booy buy jaay gëm boppam nekk taala baa mais nag Abdou dimbali ma rek dugalal ma lii dama kaa fàtte mais dafa am benn waay boo xamante ni gunaas la ne ñu naan ko ah, kii kii kii kay kii kii saane waaye politicien la hop hop hop def na ay jaloore yu bëri booy bëri am problème si asaat yi mu mu jël leen ñoom ñëpp jël jël Omar Sané Omar saane bu gunaas mu ngi def ay jéego Omar Sané loolu dund bénéfice la amaana xamuma de mais yëg nañ affaire yi nga def foofu macha allah yàlla na la dooleel si waa gunaas gépp bàyyi leen xel Omar Sané. macha allah Lamb di la gërëm di la sant bu baax jox rendez amateur yi 1 janvier waaye euh, a ci la mu nekk at ñaanal euh, képp nga xamante ne am na si jafe-jafe yàlla na ko yàlla saafara ñaanal waa diaspora bi yëpp duñu la mës a fàtte waa Amérique euh, la ñaanal jàmm li ñu ko wut yàlla yombalal leen ko invité ci waxtaanu làmb